voilà man maay Moustapha Mbaye président conseil départemental Foundiougne maay coordonnateur benn Bokk Yaakaar département Foundiougne maay président comité électoral bu départemental bu Foundiougne ñu ngi sant yàlla bu baax ci ni mu fa ci bisimilah ñu eggale ko ci alhamdulilah depuis ñuy organiser euh, candidature yi ci suma loxo la jaar maa ko organiser ba déposé ko

loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax te jàpp nañ ne mënoon na fa ëpp sax ndax euh, problème yi ñu am ñu ngi ko amee depuis machines yi doon defar carte d'identité yi dafa dañu dañ dañ ko manqué woon bi ñu koy amat presque au dernier moment la ba tax na ñu bëri bëggoon nañu wote euh, te amuñ carte d'identité beneen bi ci topp am na ci ñu bëri ñu nga xam ne. Eh, teew nañ pour bëgg a woote te mënuñu woote parce que seen tur nekkul ci liste bi am nañ carte d'identité mais seen tur nekkul ci loolu mu nekk lu lu ñu métti ñetteel ba département Foundiougne son la bu nga xamante ne dañuy bay te jamono jii ñu toll dafa nekk jamono yi mbay bi nga xamee ne ne 17 heures jot na nga xam ne nit ñi bay nañ ba wàcc war a wote si ci la taw bi commencé ba li gën a bari ci nit ñi mënuñu woon dem pour wate ji donc euh, difficulté yooyu am nañ ko mais à part loolu yàlla defal nañu sutura histoire yi ak werante yi nga xam ne am na ci département yi ak violence bi amul suñu département amul xuloo amul werante amul dara parce que ñi ñi ñu tànn ñëpp dañ ci ànd d'accord loolu ñu ngi ciy féliciter président de la république te di wax ne Euh, ñu ngi def analyse bu baax waaw ñu ngi def analyse bu baax ci euh, élection yi ñu passé ak élection yi ñu jëm muy président de la république élection président de la république ñu ngi koy préparé ñu ngi xool côté yi ñu amee manquement pour fexe renforcer fa bu baax ndax ñu mën a am vraiment li ñu bëgg ci électeur au niveau du département fu en tout cas ñu ngi sant yàlla bu baax man en même temps maa nekkoon président comité électoral diagan Barka commune Diagane maa doon seen président comité électoral foofu tamit mm, am nañ fa euh, vraiment satisfaction bu baax parce que am fa 73 de cent gagnant donc euh, loolu lu am solo la foofu mooy suma commune mooy suma base donc fa laa ñëw ci département bi foofu tamit seen participation ci euh, campagne bi ci élection bi am na solo ñu ci profité di leen remercier département fu ñu jëm di remercier commune yu Diagane di communes yi nekk ci biir département fu ñu jëm rawatina maire yi. waaw loolu man maa ngi ci sant yàlla bu baax parce que bi ñu jubloo ci organiser élection yi man lañ tànn teg ma ci teg ci seen kanam maa tànn samay candidat indi te ñi ma tànn leeroon na ma ne population parce que coow li fi mu baree rek problème investiture lay doon parce que bu ñu investir ku nga xamante ne nit ñëpp d'accorduñ ci vraiment day indi problème mais ñun loolu amul suñu département suñu département daal vraiment ña fa nekk ñëpp euh, bokk yéene parce que am na bokku ñoon sax tendance mais bi nga xamante ne euh, président de la république tànnal na boppam ñun ñëpp dañoo bokk benn choix waaw ñu nekkoon mais seen diggante ku jéggi waaw suñu diggante ku jéggi au niveau de département Foundiougne amul problème parce que amoon na maire euh, Sokone ak maire euh, euh, na ñaari meer yooyu ñoo fa nekkoon opposition te benn bokk yaakaar lam leen war a def na ko ba mu mat sëkk ba maire Sokone sax mu ngi wax ne dina dina dina démissionné maa ngi koy digal bu mu démissionné parce que nag loolu moom politique ànd mais ña fa nekkoon ñoom même ñi ak ak maire Niassène trois maires ñoo fa demoon demaloon seen bopp maire Niassène maire Sokone maire na te ñoom ñëpp teg nañ seen place te ñoom même bi ñu dem xamoon nañ ne ñoo leen ëpp doole ñoo leen mën te won nañ leen ko sans xuloo sans werante sans xeex voilà yeneen yi nag ci biir département yi dégg nañ ko Touba vraiment méttul nañ ko parce que ñun ay taalibe murid lañ suñ sañoon Touba jàmm rek lañ fay dégg mais lañ fa dégg vraiment métti nañu en tant que taalibe murid mais métti nañu en tant aussi militant Benno Bokk Yaakaar jekkuloon ñu lu mel noonu di am Touba. waaw man dama yaakaar ni loolu dafa dafa yaramam tàng rek muy wax loolu mais du ko def parce que Petit Gueye moom leeroon na ko ne mënul gañe Sokone loolu moom leeroon na ko leeroon na ne waxuma la département fu ñu mais Sokone leeroon na ko ne mënu ko gañ kon man ci am déception bu nga xamante ne war na ko jaral muy muy démissionné parce que xamoon na ne ñun ci departement bi lañ dëkk bon ministre foofu la dëkk Pape Dianko mi ñu mi ñu investir foofu dëkk ñun ñëpp kenn ku nekk la mu man def na ko Sokone saa nga tàggu sa morom donc xamoon na ne ñu si moom voilà en tout cas jàpp naa ne dafa yaram moom dafa tàng rek.

li koy digal lal moy na gën a góorgóorlu te it xam ne président Macky Sall lebalu ko lim ko fay moom Petit président Macky Sall li ko lebal moom ak lim mu fa li ko li ko Petit Gueye fay c'est pas la même chose voilà. voilà ndax mën nga ñu may rek euh, nombre de voix yi ñuy gagné au niveau départemental doy nga pourcentage yi. oui nombre de voix exactement au niveau départemental. waaw nombre de voix yi mu ngi nekk 42 562 moom la Benno Bokk Yaakaar bon waaw 42 000 ki ci topp mooy portugais Sénégal day de day dem 4 877 moom la ki ci topp Manko taxawu Sénégal Khalifa Sall mu ngi ci 4 290 ki ci topp coalition coalition wattu Sénégal kooku dafa waroon dafa bëggoon a witti Sénégal wattu doon Sénégal dafa bëggoon a

ñu tegu ci yoon nag liggéeyal ñu buñ ñu liggéeyalul bu ëllëgee suñ soxlaatee ñu teg leen fële loolu ñoom sax xam nañ ko parce que man maa jiite woon benn mbokk yaakaar bi bañoon ay coow moo tax ma retiré wu nekkuma candidat ñu tànn leen teg leen fi ñu leen teg suñu paree ñoom xam nañ ñi leen fal oh, suñu député yooyu bokkul ak député yi fi passé woon parce que ñoom xam nañ ne ñi leen fal kenn ku ci ne mën nañ jël seen mën nañ mën nañ leen remplacer suñu liggéeyee correctement buñ bëggaatee mandat ñu jox leen ko suñu liggéeyut correctement su seen mandat jaa jaaxee ñu dàq leen remplacer leen kenn voilà. moi au niveau national. Mm-hmm. voilà voilà au niveau de Diagane amoon na vingt personnes yu nga xamante ne mënuñoon wote parce que am nañ seen carte d'identité mais bi ñu demee. dañoo gisul seen tur man suma grande sœur bi ma bokkal ndey ak bàyyi ne fi mbay dem na pour wote mais manul wote parce que dem nañu ne ko sa sa tur nekkul ci liste loolu nag ñu ngi ci interpellé euh, ministère intérieur mu jéem a xoolaat loolu pour mu bañ a am parce que lu toll ni vingt électeur ñu perte ko ci benn commune ci benn bureau de vote vraiment métti waaw li ma li ma leen di wax rek mooy nañu gore te yàlla xam ne dañ daan gagné ñun nangu ko kenn du ci wérante kon tay su benno gagné dañu wara gëm yalla dem top ci ko loolu rek la am lo leen di wax. est ce que teelu tamit yéen ngeen waxul ndam résultat du définitif génn. wa mais résultat ko ba wax na am nañ ñom ñoom tam ci lañ sukkandiku ba wax na am non non non moom loolu mënul nekk parce que euh euh résultat provisoire yi gën benno moom mo gagné résultat yi mënul gën ñaar résultat parce que résultat yi gën ñoom xam nañ ne waaw tendance bi xam nañ ne Benno moom moo jiitu mais ñoom dañ ne d'accorduñ d'accorduñ nañ wax dañ ne d'accorduñ ci résultat provisoire yi génn te résultat provisoire yooyu ñun ci lañ ma ci lañ sukkandiku pour mën a yuuxu ne gañe nañ hmm? loolu loolu loolu loolu loolu ci lañ mën a sukkandiku parce que résultat provisoire bi résultat yi médias yi di joxe yépp voilà résultat provisoire la du benn résultat définitif bu ko te na nga ne Touba gagné na benn bokk yaakaar nangou nañ ko mo Dakar buñ gagné tamit na na na na na taxawu Sénégal da nangou na gagné nañ len man den non rek la ko gisee. xam nga élection mënuñ ko def ba paré tu ñak ay rax rax rax rax yi yu majeur yi yooyu mooy posé problème té yakar na ne rax rax yu am yu am solo amul fi ci Sénégal parce que rax rax yi ñu rax lepp ñoom ñoo ci and d'accord parce que amul ci lu nga xamné président de la république def na ci coobaram lenn lu ne dafa waxtaan ak opposition bi dem déposé ko fu ñu ko war a déposé ñooñu walide ko ñu ñu ñu ñu indi ko. mais est-ce que loolu du tàggante ñeel benn bokk yaakaar ñu organiser élection. Hmm, waaw du càggante ñeel benn bokk parce que benn bokk yaakaar du ñoom ñoo organisé administration bi waaw administration ñoo waaw mais ministre euh, administration bi ñoom ñoo def te administration bi mënuma jël ne benn bokk yaakaar ñooñu ñëpp lañ fi nekkal. Euh, bu amee rëq-rëq. rëq-rëq la bu nga xam ne mun nañ ko adressé république bi mais buñ ko adressé Benno Bokk Yaakaar parce que ñi fi nekk ci nit ñi yaa ma wax ne ma euh, Dakar euh, d'accord ci élection euh, ci ci ci ci résultat yi kon kay xam nga ne Dakar du ñëpp nekk ci administration bi ñëpp Benno Bokk Yaakaar lañ bokk wane wu ko kon ñoo bokk lépp kon su ci rak rëq amee nañ ko tek république bi te xam naa président de la république dana ci jël walam ba lu mel ni dootu am te tamit nak waruloon bet kenn parce que affaire bi dafa gàttoon dafa jege xamna suñu président dafa jambar sax motax ñu am résultat bi mais mënon na mënon na gëna garaw parce que ken yaakaaruloon ne carte dina génn ci distance bi bu bu toll te tamit ñu ngi féliciter président bu baax ah parce que ñëpp yaakaaroon nañ élection bi bu jàllee dana dana gëna coow li dana gën a bëri nii mu mel te lépp jàll na ci jàmm waaw loolu danga nga koy jël rek nga ko ci porte au pouvoir porte au poir bu fi mas a nekk bu ne coow loolu da lay topp ca jamonoy Senghor jamonoy Abdou Diouf Abdoulaye wax dafi jógee barki démb porte bi gënoon a bëri ay coow porte au pouvoir il faut mu am ay xëccoo parce que cadre yëpp dañuy jaw ñekklante ci côté bu ñu demee kenn ku ci nekk doo jiital sa gëm yàlla da nga yaakaar ne sa say pexe moo lay may nga avancé loolu moo waral coow nañ ko jël rek maasal ko noonu gi jàpp ne ku fi nekk ëllëg it ku dul ñun boo amee porte porte cooli toppal. ba national meeting de clôture mënuñoo gis nañ ba ma ne gis nañ gis nañ meeting yu gën a garaaw yooyu seen sëriñ bi te loolu li ma lay expliqué rek porte au pouvoir moo mel noonu rek il faut mu ànd ak coow coow moo leen ji.